mu tek ca nag yi nga xam ne bokk na ci sabab yi yàq ba tey wa minal wa minal asbaab yi bokk na ci sabab yi alati ya nga xam ne tan xut dana firi al wuddaw njàpp zawaalul aqali muuroom xel xel bu muuroo rek xel du dañ waaye day muuru su boobaa maanaam njàpp la yàqu na la koy muur nag mën naa amee bi bu sa sadum jinne wala irmaawu wala sababu xëmte wa sukkureeg màndi yëpp bu muuree sa xel mi su boobaa njàpp la yàqu na ndax la nga fa def wóoruñu waaye ndaqi dana fireeku ba tey alwu dow njàpp bi riddati ci murtad yàlla na yàlla musal mu ci ku duggoon ci diina ji njàpp lu tooy xepp fekk mi ngi ci diina ji ba mu jàpp bëgg a jul tusubaar seytaane man ko ba yàqal ko murtad génn ci diina ji ànd ak njàpp tooy xepp la bu tuubaatee léegi léegi donte xadasut fa sababu ahdas tamit amu fa su boobaa tamit maanaam njàpp la yàqu na ndax maanaam ku xas murtad li nga xamoon ci lu baax lépp yàqu na faqad amalu amaluhu wa fil aaxirati minal xaasiriin moo tax kon kooku sëyam ya na yoonu màkkaam ya yàqu na julleem ya yàqu na goreelam ya yàqu na kooram ya yàqu na ba njàppam lu bees tàq lii sax bu del si xaatee tamit yàqu na su bëggee kon julli xaat fokk mu jàppaat beneen jàppaat donte dara sababu lu ko toj wala tojut amul sababu toj wa bi chaque ki sikk fi la xadasi toj di sikk tojle naa tojlewuma te dëkkewoo toj ga su boobaa daal njàpp la yàqu na wa bi masi zakkarik laal sàkkara mu tasili bay aji jokk ci moom mu laalee ko bàttinil kaf fi ci biir ténk saa fa saa kon nga déggee ci ne mu tasili ji bu sàkkaraam daggoon dali fale mu laal ko njàpp la yàqu ndax dootul mu tasil bu fekkee dafa laal sàkkaraay jàmbur su boobaa tamit dootul mu tasil ci moom su boobaa maanaam tamit njàpp la yàquwul buñ kañ laal sàkkaraam sa lañ wax ne bu amee mubaashara ci moom lay dawra yàqu waaye ñu ne ko moom ko laal moom yàquwu dégg nga bi baatinil kaffi nag mu amee ko ca biir ténk mu laale ko ci biir ténk aw bi baatini asaabi wala ci biiri baaraam biiri baaraam yi nii ci xonq-xonq bi aw bi jan biha wala ca wàll baaraam yi moo ko laal mu topp xonq-xonq bi rek lu ko ca laal njàpp la yàqu na walaw bi asbaain doonte ci baaraam la zaidin bu dollee ko in xasandeem yëg na la morom yoy yëg léeg-léeg nga gis nit am juróom-benni baaraam baaraam bu gàtt ba wala mu gudd boo ko kaata mu yëg ko bu lakkee yëg ko su boobaa biir biir yi baaraam ba wala wàlli baaraam ya bu laalee awraay boppam bu jokkalu directement ci moom mu baasara amul dara lu ko digale njàpp la yàqu la moo yeneen baaraam ñoom àtte